ok euh, tey suñ kanam ñu am Hawks Football Club seen président bi euh, honorable Uncle James euh, tey dinañu waxtaanee ñaari pàcca mooy past season bi ak new season bu nga xam ne Hawks Football Club mu ngi ko war a ñu dugg si jamono bi Mr President tey dinañ am kontaan baax a baax pour waxtaan ak yow about Hawks Football Club nga nekk stakeholder si football for the past years ngay spend sa own xaalis si football. Euh, jamono bi nag nga nekk ab Hawks bokk président bi euh, tey ñu buggoon a waxtaane yow euh, past season yi Hawks bi gisoon nañ Hawks demoon nañ si CAF championship bi ñu bëri waxoon doo leen dem waaye mujjantil bi gis nañ dem ngeen ngeen def lu bon club defut am victory away tey loo ñu mun a wax si past season bu nga xam ne Hawks bàyyoo ko nañ 2017 2018 season bi. jërëjëf Mbaye suñ past season bi mun naa wax ne ñaari fan la am. benn fana bi am nañ success benn fànna bi amuñ success nuñ ko waxee dem nañ Nigeria ñu mun a am win foofu eh, ñu bëri foogoon nañ ni ñun duñ play ci compétition bi mm-hmm. waaye Hawks ni mu dee doxee toujours eh, ñun ñi ci bokk dañ dee jàppalante jàppalante boobu moo tax biñ qualifié loolu laa njëkk a wax loolu journaliste bi ma laaj ne ndax Hawks dinañ dem may leen waaw Hawks dina dem boobu ma ko wax amuñ xaalis waaye amoon naa yaakaar mhm. te yaakaar tasut te ñun dañ kontaan ci loolu parce que pour ñu expose suñ players yi at the other level te suñ file players yëpp xaleel lañ loolu kontaan naa ci lool mhm. yàlla def bi gars yi ñëwee fii doo rek lañ bëggoon mënuñoo am loolu waaye loolu mooy football eh, eh, yenn yi da yaakaar yaakaar tas te football loolu la da ngaa win da luus mhm. ñu jëlee ko ne noonu la war a demee suñu yàlla dimbalee bañ qualifiaat xam naa ji dinañ mën a doolee pare parce que am nañ expérience bi léegi. waaw Uncle Uncle euh, James ñu déggoon nag ay kàddu yu bàyyi ko si social media bi ne Hawks euh, amuñu xaalis pour dem si next stage bi euh, moo tax it match bi kenn xamul nu mu waaye ñu ne lack of funds moo tax it Hawks woon pour. next feed stage bi. non loolu du dégg e, ñun pare woon nañ pour dem ak club bi fu mun a àgga ngir Dakar seet amuñ xaalis waaye am nañ yaakaar te am na ñu bëri ñoo xam ne dañ doon jàppale ñun ñu ngi doon def suñu wàll am na ñu bëri ñu ñu mënoon a jàppale soo seetee ñu luus fii e, daf ñu naari ba ñu ni neen sax xuloo nañ mm-hmm. waaye nag lu wax a am la ci football soo seetee ñun ñeen doon footballal. ñu ñu di ay professional club ñu ngi fayeeku lu dem ci five thousand dollars a month suñ xale yi amuñ dara ñu mën a dem fekkaleen ñoom moom seen stadium ñu dóor leen foofu eh, te dama yaakaar ne eh, dinañ doon mën a am sponsorship yu bari bu fekkoon ne romboon nañ foofu dina def suñ xale itam ñeneen ñi gis leen ni ñoo footballé waaye nag eh, li yàlla dogal mënuloo si dara waaye du ñàkk xaalis moo tax win nañu kenn du play football bugg a ñàkk te Hawks la bokk ci loolu waaw ñu bàyyi ko si championship bi ñu gis ne after championship bi bu ligue bi jeexee um, toogo ngeen ngeen assess uh, performance yi booy yi uh, gisoon nañ nag seen head coach bi kii di Ansu moom dafa tendoon resignation Hawks nag nekkul et demanding ci club bu nga xam ne daf dee saak lii di yi xamuñ ko seen philosophie uh, lana waral ma head coach bi Ansu all a sudden Mr President mu resign Eh, Ansu dafa bokk ci club bi ba mu nekkee xale de football la club bi bi win di lose Ansu ñun Hawks amuñ dara pour wax gannaaw pour gërëm ko mm-hmm. last season bi baaxuloon mm-hmm. te wax ji dafa bare woon te nit ku nekk danga am xol Ansu li ko gënaloon mooy ñu win lépp waaye loolu amul ba pare eh, dafa xaloon na lose grip parce que indiscipline bi amoon ci club bi last season musula am ci club bi eh, mu ngi doon déggee ci mbedd mi mu ngi doon déggee ci ñun mm-hmm. ne liy xew ci club bi baaxut ku la wax ci Hawks ne eh, li su bàyyi neex nañu ndax daf ñu naari torop exécutif sax décide nañ pour bind a ko wax ko jërëjëf pour liggéey bi nga xam ne moom la defal Hawks suñ amoon liñ bugga Ansou dafa continuer ci club bi waaye nag eh, kilifa la gis na ne xëj na dafa war a noppaleku waaye ñun yaakaar nañ ne dinañu dimbale ci beneen fànn waaye bi moo liggéey tam am na ñu mu doon liggéeyal xam nga ñun suñ technical team eh, daf dee dem bi six to eight people so moo tax pour ñu jël keneen mu dem place am mitiwuloon lool xox dafa mel ni famille amuñ lu ñoo jox nit ñi waaye am nañ jéggoo ak jàmm ci club bi eh, demi ansu nag dégga dégga miti nañu lool waaye xëj na dafa seet ne looloo gën ci moom looloo gën ci club bi comme ni ma ko waxee yaakaar nañ ne ansu dina ñëwaat jàppale ñu ci yeneen fànn parce que ansu expérience bi am ci football yëpp ci xox la ko jëlee as a player as a trainer as manager eh, waaye nag yedde yi da loolu mooy xew xëj na miinal bi ko xale yi miinoon moo tax ba mu demee ni mu demee woon waaye yaakaar nañ ne loolu dinañ ko régler parce que Hawks mënu la nekk ak club boo xam ne dafa am indiscipline ñun dugguñ ci football pour play pour win rek dañuy seet naka la ñoo développé xale yi to good leadership naka lañ leen di jàngale lu baax naka la ñoo jàppalantee ndax seen ëllëg mun a baax moo tax am na yenn façon yi jikko bugguñ ko suñ club mun ngaa nekk ak player bi gën a baax waaye soo amul jikko bi xox bugga doo mun a toog ak ñun ok euh, ñu xool nag euh, monsieur président euh, xëj nag performance yi baaxut last season waaye gis nañ Hawks Football Club am players yoo xam ne right ñu si top flight league bi Moussa Baro di play Atlanta Ibrahima Koli Iboy di play Atlanta on 19 jamono bi ñu invite leen si national team bi ñoom ñaar yëpp ak Youssoufa Bob moom it mu nekkoon sa player tey as a club président loo fii nga gis three players ñu invite leen si national team bi te ñëpp si sa club lañ jógee. suñu objectif bañ commencé ñu ngi ko active parce que ñun ñi bi play ñetti play yi biñ ñoo playal duñ ci daan jëlee dara su bëree ba bëree one thousand dollars one thousand five hundred waaye ñu bugg a club bi ñu liggéey ak ñun ba seen football feeñ tey mun nañoo jëriñ seen bopp mun nañoo jëriñ seen famille ñu ñoo jëriñ sax ñun club bi eh, loolu kontaante bu rëy la ñu yaakaar nag ne lii commencement bi la suñ footballeur yu bëri ci club bi yaakaar nañ ni dinañ am club su leen jël parce que lu baax rek moo nekk Hawks ñu mun a football rek a nekk Hawks ñu yaakaar ne su seen wërsëg feeñee ñoom ñi dinañ jëm ñu def ni ñoom baro ñu feeñal seen boppa feeñal seen talent ekkati seen tour ekkati turu club bi parce que fu ñu ooyee player yooyu foog ñu laajte fu ñu jógee ñu ne Hawks lañ jóge loolu pugare bu rëy la ci ñun kontaan nañ ci lool lu mooy rek ñu leen di ñaanal ñu gën a mun a perform yàlla may leen wér gu yaram ñu sérieux ci liggéey bi ñoo def parce que football neexul. yàlla mun leen a yóbbu kanam ci liggéey bi ñoo def fi mu nekk nii. waaw ñu ñëw nag dugg si season 2018 2019 eh, ñu gis Hawks Football Club for the first time eh, foreign eh, company bàyyi ko outside ñëw amee contract with the national club si réewi Gambia jamono bi lan nga yëg bu Clemex ñuy war a am contract ak Hawks Football suñ diggantee Clemex waxtaan la woon eh, parce que football li ko mën a yóbbu kanam dafa bari te ñun amuñ ko woon eh, dañ doon struggle pour am kids yu baax ak yooyu yëpp waaye léegi moom bi amee contrat ak Clemex wàññil nañu expenses ci mbiri jaasis ak ah. yooyu mm-hmm. ñu yaakaar nag ne loolu daf ñoo jox jom suñ xale yi sax parce que soo solee di rafet dem football. da nga war a win. ñu yaakaar naa ne partnership bi ñun ñoo Clemes dina baax ci ñun dina baax ci ñoom parce que suñ team bi yaakaar nañ season bi ñoo dugga nii dina nekk a good season for us suñ amee liñ bugga loo xam ne compétition la ñun ñoo ko win te yàlla mun naa def loolu. waaw ñu wax nag Hawks euh, one of the best club la si Gambia because soo ko xoolee sectorial house ñoom rek ñoo ko am brand euh, club bi euh, jamono bi lan nga mun a yedda yeneen clubs yi pour ñu mun a roy si Hawks football club noo leen jagare club bi ñu ngi wax ne dañ war am professional clubs ci réew mi fii mhm. te ñun ñëpp xëj na gannaaw institutional clubs yi amuñ doole mhm. soo amul doole na da ngaa da ngaa jéem Hawks dafa dooroon di raam ndànka ndànka bi ñoo wax ne dañ bëgg a clubhouse ñëpp a ngi doon wax ne antanuñ ko mhm. yàlla dimbale ñu ñu ne pour am am am boos sax pour yóbbu xale yi ñu ne kenn du ko mun yàlla dimbale ñu foog nga am stratégie naka nga yóbbu sa club kanam stratégie boobu nag danga koo teg nga dream ne fii nga bëgg a sa club dem loolu mun naa am bu fekkee ñëpp bokk nañ xam nga gis nga ne ñun suñu exécutif bi yëpp xaleel lañ exécutif bi kenn amul doole waaye am nañ aîné ba pare yaakaar nañ ne ñoom mun nañoo encourage footballers si encourage ñeneen ñu invest ci Hawks suñ amoon li ñu gënal tey ñu am ku ñëw bokk ak ñun ci club bi ñu jëm ko doole ikkati waaye suñ amul loolu tam ñun duñ naagu mhm. dañoo continuer moo tax may wax club yëpp ne nañ commencé ñu commencé lu tuuti ñu jéem a dem fi mu nekk nii suñ xalaat bi gën a mag mooy dañu war a am suñ fili boppa loolu yombul jéem nañ at bu jot ñu ngi jéem yaakaar nañ ne xëj na file benn at ñaari at dinañ mun a am suñ fili boppa ñu door di ko jagal parce que loolu moo mën a yóbbu football kanam mm-hmm. moo tax maay wax club yëpp ñun du am alal moo ñu teg fii yaakaar moo ñu indi ba fi àgga ak dañ am dedicated members ñoo xam ne duñ dee jël no for an answer failure is not an option ñoom ñëpp dañ bëgg a success moo tax ma foog ne club yëpp mun nañoo def ni ñun am na ñeneen sax mun nañoo raw euh, institutional club si surtout wane ne na doole jagal parce que ñoom institution yi am nañ xaalis ñu def independence nga xam ne bés bu ñu waxee ne dañoo am professional clubs lu mu tuuti tuuti dinañ am eight ten professional clubs. ndax football bi mun a dem kanam. ok euh, leneen tamit loo xam ne gis nañ ko mooy ñu ne Hawks am nañ euh, senior team ak U team first division second division waaye coow li bëri na trop ñu ne Hawks mënut a yóbbu ñaari teams. dinaa la ci yokkal am nañ taaj. ok am nañ académie. ah c'est président loo fii di war a yóbbu all those three teams. Eh, yaakaar. yenn yi du am xaalis am pexe la te eh, ñun yaakaar nañ ne team suñu amee yëpp xam nga bi ñoo commencé seconde division bi sax ku nekk lu nekk la waxoon hmm. waaye bi ñu demee play ku nekk gis nañ liñ def te loolu dafay yokku parce que club eh, eh, club bi ku fa bokk rek am jom hmm. parce que li nga faa fekk mooy discipline bu mu set te loolu mooy yóbbu lu nekk kanam. ñun yaakaar nañ ne suñ académie bi suñ fo Hawks first team second team yëpp dañoo dem kanam te yaakaar nañ ne season bii ñëw nii mhm. nit ñu dinañ gis lan la Hawks moom suñ euh, team yëpp dinañ am success ok euh, lan lañ expect at bi pour coaches yi because euh, yàgg na fans yi di wane bugga nañu win league bi ndax as président di nga coach bi xam nga eh, amuñ doole amuñ xaalis waaye liñ dee def toujours mooy coach bu nekk dañoo waxtaan ak yow wax la ne lii lañ bugga mm-hmm. ñun dañ dee jox suñ coach yi tàggat mm-hmm. eh, ñi xam Hawks at bu jot dañoo wax ne bugguñoo rombat third position bugguñoo rombat fourth position bugguñoo dañ bugg a win league bi mm-hmm. te te coaches yooyu am nañ tàggat yooyu dañ bugg a roon club bi as a professional club foog ñu commencé léegi di am targets pour suñ koo yi te ñoom ñëpp xam nañ ñun tam nag suñ leen joxee targets dinañ jéem a def ne ñoom liñ soxla pour mun a achieve targets yooyu le jox nañ leen ko. ñu yaakaar nañ ne di season su neexee yàlla loo xam ne compétition la bëgg nañ Hawks win ko. right euh, finally euh, fu ñëw close rek mooy yan kàddu nga am pour Gambian football euh, jamono bi coow li bëri na trop demoon nañ bi am yaakaar affaire yi yaaxuwaat. nga nekk stakeholder yàgga si football lan mooy message bi pour Gambian public bi. toujours dama dee wax mbiri football xam nga du football rek ci loo nekk su juboo amut progrès du am ma la ko daxa ma la ko daxa ma ñëw bokkaa yow liggéey moo génn waaye wax ji daf dee bari borom xam-xam yëpp dañoo toog ci biti di nga dégg rajo yi dinañu wax kayit yi dinañ binda waaye li ma wax moo di soo waxee ne nañ génnee fii lii lan lañ faa teg. bul wax rek nañ fi génnee lii waaye duñ fa am luñ fa teg te football stakeholders yi ñoo ko war a amee waaye si yow am yow soo amul club soo supportul club nga am sa gémmiñ rek di wax nga am sa pen di binda nga toog sa kanami laptop ngay binda dama dee jaale ñu ngay wax Gambia fii naka lañoo ñoo amee result lan ban investment lañ def seetal yeneen réew yi nga seet seen investment ci sport nga seet ñun suñ ministre yi la nekk seen budget ci sport yow nga bugg a xëy ñi nga xam ne ñu ngay def investment nga leen di gañe bu mujjee mujjee mujjee fii bi fi toog a ñëwee seen room bi ñu leen jox dañ ko turn into a clinique équipement lañ am ñun amuñ loolu ñun ndax am nañ docteur buy toppatoo booy si xam nga eh, toog ci rajo wax nag wala binda dafa yomba nañ jéem a invest ci club yi yëpp su football amee ñu dem seetaani football bi ndax tele dalasi la ñoo fay ndax five dalasi ndax hundred dalasi ñu fay mm-hmm. waaye bu fekkee ne yow doo dem football gënal na la nga seetaan premier league bi ci télévision moo gën a attracté mm-hmm. ba pare suñ player rek nga ne ñii dañ na sax ñii duñ mën a win kaay leen ñu bokk benn xalaat ñu yóbbu football bi kanam réew yi ñu wóor yëpp. Mauritanie dafaa ñëw fii ñuy ko dóor. bi Bissau daf daan ñëw fii ñuy ko dóor. tey ñun mënuñoo taxaw a ñoom waaye soo seetee seen programme nga seet liñ fa dugal ci aleel nga xam ne foog ñu àgga fi ñu waaye ñun ah, suñ local club si seetal ku leen di support. kenn supportu ñun suñ gémmiñ rek lañ am wala suñ pen di binda loolu lañ war a bàyyi koo xam ne am na idée bu baax mhm. indi leen ko ci taabul bi. te ñu understand ne du ñun ñëpp ñoo mën a nekk président du club du ñun ñëpp ñoo mën a nekk président du fédération kenn kenn koo mën a am su ko kii amee nag ñu bàyyi ko nekko lii lañ bëgg nga liggéeyal ñu su fekkee liggéeyal nañu ko baax na su ko liggéeyalul ñu génne ko waaye balaa moo door liggéey ñu door di góor tànkaam ñun wax rek lañ ci am loolu nag Gambian football dafa ñoo play box baa ba mm-hmm. ba ñoo dem stadium dara nekkuloon ci football ñun ñi ci nekkoon ñoom Ousseynou Ndiaye ñoom Fisco Konaté ñoom Gabi Socé ñoom Omar Sy ñoom Starlight ñoom luy ñun ñoo ci daan dugal suñu aleel la. waaw te xam la gënoon a am resources ak resource dans this time boo xam ne subvention mu ngi ñëw mënuñu am resource yi. subvention bi pour lan la. Hmm. FIFA subvention du pour clubs yi. ok clubs yi ñoo war a jagal seen bopp. FF bi nag ñu ngay def lu ñu warul def sax parce que loolu su ko FIFA xamoon. dinañ am problème parce que xaalis bi leen FIFA jox to develop di game la not to support a club club moo war a support boppam te loolu fi ñu ko jëlee mooy ci nguur gi foog ñu naxantee nguur gi foog ñu naxantee eh, private sector bi ñu mun a dugal alal ci football waaye suñ foogee ne ñun dañ war a toog fii li yóbbu suñu football mooy li ñu FIFA di jox hmm. <laughs> du dem li ñu FIFA di jox du pour loolu na nit ñi xam loolu nag ñu jéem a jàppoo club bu nekk na am ñu baax ñu fa dem bokk club bu nekk na am membership yow di nga dee gis football su amee ñenn faate soo amee two hundred nit am nga lu bari ah naka la football demee kanam suñu amee international match ñëpp ñëw thousand and thousand ñëpp ñëw ne hey gars yi dañ na sax kenn na saxut waaye ñun ñoo na sax ñun waa Gambia. parce que soo seetee suñ dëkkandoo yi yow yaa ngi gis ñun xoog sax suñu play yi fi dee jógee di dem Sénégal ak lu tuuti liñ cee am ban club moo ko boot def fi benn ah léegi nag soo bëggee yëpp def dem kanam ne la ñu juboo nekk benn ne nañ indi xalaat yu baax yëpp ñu teg ko amee stratégie boo xam ne dina yóbbu football kanam. jërëjëf monsieur le thank you very much.